sëriñ yi bu ko defee taalibe yi kenn du leen digal dañuy defar oh. boobu ba léegi ñu ngi koy tere màggalu Daaru Salaam bi kër goo dugg jigéen ñaa ngi xees bay ci langal seen i gelafaas boo duggee ci wanag xeeñ si kareet nga bëgg a topp ci taalibe yi xas rek nañ ba caaxaan defaru ñun ñoo defaru wut loolooy dëgg barke Serigne Touba fii ak Serigne si defaru wut dañuy wax ba déwén duñ ko ba loolu bi sëñ Touba lu mu tere mu continué di sax keneen mënu koo tere mu sax suñ bëggee mu sax nañ defar suñu bopp defar suñu gis taalibe bu dem këram sax naa di sëñ wax na ngeen ko ànd ak moom def ci sëriñam buy nuyoo day sëgg parce que lam sëriñam mais loolu gàcce la nañ wax dëgg barke Serigne Touba looloo am ci réew mi li ñuy tere mi ngi ci suñu ronda yi ngi ci suñu ëtt yi mi ngi ci suñu buntu kër yi te nekkul sax ci mbeddu taalibe yi taalibe yi bala nga koo gis ñoom dangaa lukkat seen ronda yi Serigne bi nag booy dugg buntu këram di moom mu bëgg la koo tere looy tere nit day fekk doo ca ne looy dig nit day fekk nga am sëriñ ak taalibe dafa la ca boole taalibe yi lu ne mën nañ lu ne mën nañ leen caa fekk ndax yow yëg ne defaruwuñ taalibe bi mën na julli këram mën a wóor këram mën a natt asaka këram am fa ndey am fa baay am fa imaam romb imaam ba romb ko ko jàngal alxuraan romb baayam di ko yar jàngal ko métti ñëw ni sëñ bi yow laa yaakaar sëriñ si bëgg a toog naan taalibe yi baaxul ñun ñoo baaxagul waaye taalibe yi ñàkk a baax doo boo ko naan baaxoo wàcc na yow mi ko naan baaxoo yaa wàccu boo wàccee doo ko danga koy defar ba ku ko gis xam ne baax. dëgg la Mbacke. nañ waxante dëgg li fi nekk ñuy raay sëriñ du buur taalibe du jaam. koo mën a jël doomam mun a mën a jël sa doom sa nawle yàlla doom nga leen wutal te soo amut yàlla gënoo ko waaye taalibe yi dañoo nooy bopp nu mu sant ñu ne Mbacke nañu ron seen. bopp bi ci ron tànku mbàkk mbàkk mu nappaajal ak génn tilim xeñ xun nañu defaru nañ ba caaxaan man loolu tax de dëgg laa di wax dëgg tumuranke dëgg dafa tumuranke ndax fi ñu ko yaakaar amu fa fi ñu yaakaar dëgg amu ko fii ma toog boo jógoon doo wañ ñetti këri mbàkk mbàkk ci Daaru Salaam gii ma dëkk te fekkoo fa la muy tere lu tax buñ bëggee tere dañuy defar suñu bopp. Mhm. kilifa da ngay defaru ba ku la gis defaru waaye yàqu ba sëriñ taalibe bu la gis ne ah sëñ bi moom ñaanuma yàlla roy ci moom xanaa jëfe ndigal rek waaye sëñ bu mel ne sama kër. Oh. bari ñoo xam ne la ñuy gis ci kër ba buñ fa duggee ñaanu yàlla mu nekk ci seen kër. mooy dëgg li li may wax na bu duuma de ci baas laa toog barke Serigne Touba fii ma koy waxee jànge naa fi fi laa yoroo fi laa màggee ku fi sant Mbàkke wala nga sant na xam ci ma la ko ku ma xam ci jigéen boo ko waxut baalu ma la ko ku ma yoreel bor boo ko waxut baalu ma ko ku ci sàngara boo ko waxut baalu ma ko ku ci tox boo ko waxut baalu ma ko ñuy wax nag ñu bañ a xam yàlla doon oh. da ngeen ko xam yàlla la yi ut ci yéen utu ñu ci sëriñ si añ utu ñu ci reer utu ñu ci ndékk utu ci ñun ay dabar utu ñun ci ay yére utu ci ñun aw ñàkk ñu defar leen dong la ñuy uti ñun suñu leen mën a defar nañ leen leen de képp ku ma yaakaar ren ba déwén defaru woo xamal ne ab naafiq laa maa nga lay ndax siècle ko la defar te xam ne dara amu àjjana yàlla jee moomu ma ko sëñ daam sama baay moomu ku ma ci ne soo dee ma tàbbal la àjjana dama lay nax xam nga li tàbbal taalibe àjjana mooy nga xamal ko yàlla teg ko ci yàlla wan ko sa borom mu jeex ca tàkk boo jiitoo mu jiitu boo duxul àggal ku àgg àggal ci woomu la loolu war diggante taalibe ak sëriñ waaye nii dammi baaraam di làcc làcc te taalibe bi demee ngay wax ak soxna yi di wax ca taw taalibe yi suñuy nawle lañ nañ wax ak ñoom jox leen loxo jaxasoog ñoom màggalu maam seexante gi ñoo ko màggal sëriñ sépp timis lañ tër bi sëriñ sépp timis lañ tër bi taalibe yi màggal ba ñibbi ba bëgg leen ëppale ci sëriñ Tuubaa fan lañ koy teg amul mbàkke amul joxaane Serigne Touba tey la gën a jafe ñëpp a ko war a uti. Mhm. noo mën a sant te uti woo Serigne Touba amoo ci looy defal sa bopp bay jox kenn dara. dañ ko caaxaan yi noos gi dafa bari. Mhm. ak caaxaan yi ak naxaate yi. nañ ba caaxaan yi de dañuy nax taalibe yi rek waaye Serigne Touba kenn mënu koo nax. déedéet yàlla kenn mënu koo nax. seet taalibe bu ñëw jël ñaari loxoom ne Serigne bi aslamtu nafsi li wajhillaahi wala rasuuli léegi nag jébbal naa sama bopp àdduna ak àllaaxira nga bay wax. man sañ xaadim man a la nangu naa adduna àllaaxira nga joxe ñu ne bëreet adduna nga jël sa alal jox ma maa la yónni boo xewlee doo ma gis te su ma xewlee nga ñëw da ngay gis ku amub sëriñ sa doom judd ba tool na sëriñ ba di dem ci moom sëñ bi musa te tànkam këram loolu goree di la te yow loo xewle taalibe bi jóg loo ko laaj mu jox la këram képp mënoo ko faa fekk sagal ko njabootam xam ne ab sëriñam dugg na këram oh. loolu loolu loolu loolu billaay wallaay sëriñ bu koy def goree di la nañ wax na dëgg taalibe yi dañoo wàcc seen lépp uti Serigne Touba wàcc seen lépp uti yàlla yaakaar ko ci ñun kon nañ fexe bu buñ ko amuti ñu gën leen a gore waaye yow bu la nuyoo deux cent mille booy sant ci rajo sant Baye Ibrahima moom de nag mi moo bi nga xam ne jóge na dëkk ba ba ñëw amutu paas xaw ma nu mu def ba ñëw bu ñëbbee xaw ma dana añam déet du ma ko tudd ndax amul deux cent mille waaye ki indi deux cent mille naa ko sa ginaari daaw ya nga yoroon mbaa déew waaye ki indiwul dara dara bi dem ba ñibbi te du xam ne sëñ bi xàmmee na yow sëñ bi nga nuyu ko xàmmeewu la nga tëdd sa kër naa sëñ bi ma yóbbu àjjal sëñ bi añ ba regg soo li yéreem jàkkaarloo ki soxnaam xàmmeewu la di la dig àjjal noo mu ca kaw benn taalibe bi di taa mu yor oto buy jar cinquante millions denc kontum trente millions taalibe bi feebar ordonnance su vingt mille francs du ko nemmeeku sax ba xam koo jëndal mënula koo jëndal du xam añ nga du xam reer nga danaa sëñ bee may añaale ajal yow sëñ bi fii fi amagus néew muy àdduna añaale wala dina dik ëllëg boo ko dagee ci attaar weer otop saa yi mënu la ci yóbbu di la dig àjjanay suñu borom te wér na ko ne bu tëddoon ci nekk moom ba putteeku nga ne ko fa àjjana nekk mu ne dara xawma ko ci moo la gën a tiit su deewee nañ ba caaxaan yi nañu wax taalibe yi dëgg àjjana nekk ci bët la amoon ak jëmm ñu di ko gis mu jox la ko ngay dund bu wér Serigne Touba ku ko mas a topp defal na la ba nga gën say bopp léegi nag da ngay topp Serigne bi mu defaroo la moom ba gën ay bokkam yow mu toroxal la ba nga gën say bokk gën la جنات وادي نيرانها